sëriñ saalihu mbàkke sëriñ saalihu mbàkke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1916 ci dëkku waajuram boobu di daaru salaam nag duyooli ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1916 muy doomu sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli ak soxna faati gom am na nag ñu bokkal soxna faati gom ak sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli ñu mën cee ràññee nag seen mag ja soxna busa mbàkke bintu soxna faati gom bintu sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli sëriñ cheikh mbàkke ibnu soxna faati gom ibnu sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli ak moom Mbacke ibnu soxna faati gom ibnu sëriñ Abdou Dia Mbacke Duyooli ñaar ñooñu nag la bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen ak moom nag muy ñett waaye am na kenn nag kuñ bokkal nag waajuru jigéen te bokkuñu nag waajuru góor muy ku ñuy wax nag soxna Roqaya Njaay bintu soxna faati gom bintu sëriñ Alioune Njaay jigéen boobu nag la am ñu bokk wu jigéen nag te bokkuñu nag waajuru góor ngir xamale leen nag njaboot gi nag mu bokkal nag ñoom ñooy ñan muy soxna Busa Ja Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Mbacke Joosi moom sëriñ Mor Penn Mbacke nag lañ ko jébaloon mook si nag amuñu nag ak njaboota mbàmp na itim nag lañ ko denc génnuk àdduna soxna sa mbakke mi moo tax sax dëkk boobu nag di daaru salaam duyooli am sax nag ay armeer sëriñ saaliwu mbakke magam jiitim nag di sëriñ cheikh mbakke moo njëkk a wuutu nag waajuróom sëriñ Abdu Ja mbàkke duyooli dëkk bu ñuy wax ndiine nag fala feeñe jamono di ëttub nag waajuróom wu jigéen ci 1998 nag la génn àdduna jigéenam bii nag di soxna Roqaya Njaay ñu bokk nag soxna Faati Gom te bokkuñu nag sëriñ Abdu Ja mbàkke soxna faati gom bi mu matee dem kër sëriñ ibrahima jàmbàkke mi rakki sëriñ abdu jàmbàkke du yooli nag lañ ko njëkk a jébbal mook sëriñ ibrahima jàmbàkke nag am nañ nag benn bant ñu ko doon wooye nag soxna xari jàmbàkke ginnaaw bu mu jugee nag ci loxoy sëriñ ibrahima jàmbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ abdourahman géey nekkoon nag taalibe bi nag sëriñ mëndumbe mbàkke mook sëriñ abdourahman géey nag am nañ benn bant muy soxna mati géey ginnaaw nag bu soxna roqee njaay nag jógee ci yi nag sëriñ abdourahman géey mii lañ ko jébbaloon nag ku ñuy wax sëriñ mbay jóob ci dëkk bi nag di mbàkke mbayaar mook sëriñ mbay jóob nag bu Mbàkke Mbayaar nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Mariama Jóob ak soxna Daba Jóob loolu nag mooy njabootuk soxna Roqee Njaay di jarbaati Sëriñ Saaliwu Mbàkke ngir xamale leen nag jarbaati Sëriñ Saaliwu Mbàkke yooyu nag ñoom ñooy ñan jarbaatam bii nag di soxna Mati Géey bi mu matee dem kër Sëriñ Jëmtu Géey nag lañ ko joxoon mook Sëriñ Jëmtu Géey nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Maam Faati Géey Sëriñ Abdu Géey ak seen mag ja nga xam ne nii nag jot am nag aw tur ginnaaw bu soxna Mati Géey nag jógee nag ci Sëriñ Jëmtu Géey lañ ko jébbal nag ku ñuy wax Sëriñ Ahmadu Aan mook sëriñ ahmadou ann nag benn bant rek lañ am muy sëriñ mammoor ann jarbaatam bii ñuy wooye nag soxna mareema jóopa bi mu matee dem kër sëriñ sàmba njaay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ sàmba njaay nag jotuñoo am ak njaboota jarbaatam bii ñuy wooye nag soxna daba jóopa bi mu matee dem kër sëriñ ilimaan mbàkke nag lañ ko jébbaloon sëriñ ilimaan mbàkke nag moom sëriñ habdu ja mbàkke duyooli nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ ilimaan mbàkke nag benn bant rek lañ am muy sëriñ naa mbàkke ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ ilimaan mbàkke moom soxna daba jóopa lañ ko jox nag ku ñu wax sëriñ Basiiru Gom mook sëriñ Basiiru Gom itam nag benn bant rek lañ am muy sëriñ Moustapha Gom njaboot gi nag ñooy njabooti jarbaati sëriñ bi ngir xamale leen nag seen maam nag soxna Faati Gom nag moom mooy kan ci dëkk bu ñuy wax na kër Sayer Gom ci suuf si nag di Bambey nag la cosaanoo bi mu matee dem kër ku ñuy wax nag sëriñ Aliou Ndiaye nag lañ ko njëkk jébbal mu am fa nag benn bant ginnaaw bi nag lañ ko jébbal nag sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli mook sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli itam nag ñetti bant nag lañ am muy sëriñ Cheikh Mbàkke soxna Busa Mbàkke ak sëriñ Saalihu Mbàkke mu nekkit nag soxna nag su baax a baax nekkit nag soxna nag su yéemee yéemee ba tax na nag képp koo xam ne nag mbokkum sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly nga fonkoon nga nag soxnaam si nag di soxna Faati Gom mbooleem donga yi nga xam ne itam nag newoon nañ itam nag ci daaray sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly ñu fonkoon itam nag soxna Faati Gom la seedeel nañ ko nag seeda nag yu am solo bépp wólla répp sëriñ Abdou Dia Mbàkke Doyoly ku ràññee woon nag soxna Faati Gom nga jëmm jooju nag moom meññi nag sëriñ Saaliwu Mbàkke mii mu nekkit nag jëmm joo xam ne nii itam lal bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag joxoon sëriñ sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly moom itam nag la ko sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly joxoon ci waajuru soxna Bintu Mbacke moom sëriñ Saaliw nag la mujjoon lal boobu itam nag biñ ko yóbboo Touba belal ci nawet nag bu fa sëriñ Saaliw Mbacke nag nawetoon la am na ku ko jëloon mujjoon na ñëwaat itam nag doon xamal ne moom moo jëloon nag lal ba soxna Faati Gom moom itam na ko amoon wërsëg la bi sëriñ Masamba Mbacke nag ganesee sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly fas wiñ jébbal sëriñ Masamba Mbacke addiya moo ko joxoon nag ab taawam sëriñ Cheikh Mbacke ngir nag mu ziyaaree ko nag Cheikh Masamba Mbacke jëmm sëriñ saaliwu mbàkke sëriñ saaliwu mbàkke nag waajuróom wu góor mooy sëriñ abdul xaadar mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ abdu ja mbàkke duyooli doomu sëriñ mbàkke soxna la sëriñ mbàkke soxna doomu sëriñ abdul xaadar mbàkke la sëriñ abdul xaadar mbàkke moo nekkoon nag taawu maam balla aysa mbàkke jëmm jooju nag di sëriñ abdul xaadar mbàkke nag ñu gën koo xam nag ci sëriñ abdu ja mbàkke moo sanc nag dëkk bii nag di daaru salaam duyooli demoon na gànnaar ci ndigalul magam nag soxna fat ja mbàkke seeti nag waajuróom sëriñ tuuba seexul xadim ku liggéeyal seexul xadim la ku seexul xaddim itam nag gërëm la ñaari jëmm yooyu nag ñoo meññ seen doom ji nag di sëriñ saalihu mbàkke bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ saalihu mbàkke la ko waajuram nag jël sëriñ Abdou Dia mbàkke du yooli boole koog nag ñaari doomi baayam muy sëriñ ilimaan mbàkke ak sëriñ mahmoud mbàkke booba nag fekkoon na nag seen mag ja sëriñ cheikh mbàkke du yooli seen waajur wa sëriñ Abdou Dia mbàkke du yooli dalaloon ko alxuraanul karim ci loxoy boppam bi nag la ko foboon nag jébbal sëriñ xaddiima seexul ñëwaatoon nag sëriñ Cheikh Mbacke Douyoly mu ñëwaat nag ci loxoy waajuram bi leen seen waajur nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly nag di jébbal nag sëriñ Touba Cheikhoul Khadim moom sëriñ Salihu Mbacke sëriñ Ilimaan Mbacke sëriñ Mahmoud Mbacke la fobaat nag sëriñ Cheikh Mbacke nak mi nekkoon seen mag yébbalaat ko nag Cheikhoul Khadim Cheikhoul Khadim itam nag moo sàkku ci sëriñ Mor Diobé Touré dëkkoon nag ci dëkk bi nag di Touré Ndula ngir nag mu jàngal nag doomu sëriñ Abdou Dia Mbacke yi nag alxuraanul karim bisub keroog nag mi ngi xamal nag sëriñ Mor Diobé Touré moom Cheikhoul Khadim xadim gone yooyu nag bu leen fitnaal doon xamal nag ñoom sëriñ saaliwu mbàkke mii ak seen mag ja nag sëriñ cheikh mbàkke su ngeen demee nag na ngeen nangoo xamtu nag ci loxoy sëriñ moor jobbe turé mii nag la wéy nekk jàng fa nag alxuraanul karim waaye laataa nag muy mokkal alxuraanul karim nag jóge na nag ci loxoy sëriñ moor jobbe turé ci dëkk bii nag di turé ndu la waajuram nag sëriñ abdu ja mbàkke duyooli jox ko nag ku ñuy wax sëriñ moor jaxate ci loxoy sëriñ moor jaxate nag la mokkale nag alxuraanul karim ci loxoy sëriñ moor jaxate itam nag la binde kaamilam ci loxoy sëriñ moor jaxate mii nag la wéy nekk nag jàng itam nag xam-xam ba ni mu géejoo nag ci xeetu xam-xam yi mu jógee foo nag waat nag ci loxoy waajuram nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly bi mu ñëwee nag ci loxoy sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ab diir bu néew nag la nekk ak waajuram bàyyi koo waat fi dem nag ci dëkk bii nag di Kaolack doon sàkku ji waat itam nag baneen xeetu xam-xam wàllu laslaar nag la doon sàkku ji ci dëkk boobu nag di Kaolack demoon na itam nag ba géeju ci lool lool lool ba am nag benn bis xelam nag di ko xamal ne barke wala barke bi nga am daal ngir sëriñ Touba seexul xadiima warulaa may nag ngay laslaar loolu itim daal ci la ko xelam na xiir mu bàyyi koo nag ci dëkk boobu laataa sax muy jóge nag ci dëkk boobu nag di Kaolack ci kër nak kooku nga xam ne nii nag moo ko doon jàngal laslaar bi mu ñëwee nag di ko tàggu sëriñ bi nag da koo xamal ne ba ma noppee ci yow da yàgg na waaye sag mën a bind nag moo taxoon nag ma téye la fi lépp loo xam ne nii daal waroon naa la koo xamal na xam nga ko dama bëggoon a sàkku ci yow nag di xam lan moo tax nag bëgg a delluwaat nag foofu nag di ko xamal ne man de damaa bokk nag fu baax ci njabootug sëriñ Tuubaa seexul xaddim nag laa bokk te lii may jàng de saa bu ma ko defee métier daa mel ne daal xamatuma lan la ma sëriñ Tuubaa seexul xaddim nag defal te ëllëg itam nag yow mal xiyaam rus naa nag dajee nag ak moom mu di ma xool nag doon xam ne ci xaalisu lasraar nag laa doon dund googu gàccee daal rus naa ëllëg nag dajeeg sëriñ Tuubaa seexul xaddim mu di ma xool nag xam ne xaalis boobu nag laa doon dund loolu daal tax juróom ci loxoy sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly nag la wéy nekk ba ni mujjee gis nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ci atum 1966 bi matee samp kër nag ñu boole koog nag soxna màggat gom sëriñ Saaliwu Mbacke nag mook soxna màggat gom nag am nañ nag ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Seexuna Mbacke mi nekk nag ab xalifaam nag jamono ji soxna Faati Ja Mbacke di ki sëriñ Saaliwu Mbacke faye nag bàjjanam soxna Fat Ja Mbacke ñu gën koo xam nag ci soxna Bintu sëriñ Moustapha Mbacke ku ñuy wax sëriñ Mbacke dafa génn àdduna kam faye woon sëriñ Abdoulahat Mbacke Mbacke kooku itam nag dafa génn àdduna ak kañ doon wooye nag sëriñ Ibrahima Mbacke kooku itam nag dafa génn àdduna njaboot gi nag la soxna màggat gom am mu des nag ci loxoy waajuróom ci dëkk boobu nag di Mbacke Mbayaar Mbacke Mbayaar googu itam waajuróom nag sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli joxoon na ko fa nag coopérative ba ngir nag mu yoroon ko mu nekkit nag ku teel am xel nekkit nag ku yeewu ba tax na itam nag bari na itam nag ay relation wala ay yónnin yoo xam ne itam nag moom la ko waajuróom daa yónni te jamono jooja ginnaaw bi itam nag waajuróom itam nag jële woon na ko nag Mbacke jigéen nag cosaanoo di dëkk bu ñuy wax nag ndiine nag ci Bambey kër ga fa sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly amoon moom nag la fa féetale woon nag dëgal ko fa bépp relation boo xam ne nii daal ci département bu Bambey boobu dafa soxal nag mbirum xab du Abdou Dia Mbacke Doyoly moom sëriñ Saliou Mbacke mii nag moo ko yoroon bépp magitim wala muy taalibe sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly moom itam nag moo doxoon nag sa digganteeg sëriñ Abdou du Mbacke Doyoly lépp itam nag lu ñu war a lijjanti foofu itam moom mii itam nag moo ko doon lijjanti wii nag topp nag ci ginnaaw waajuram nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly ba nim nag waajuram nag sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli mu jël léppam nag jébbal nag magam sëriñ Cheikh Mbàkke Duyooli di ko xoolee nag sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli toppit nag ci ginnaawam di wéeyitim nag ndigalam lu mu amitim nag yit ko ba ni ko magam nag sëriñ Cheikh Mbàkke Duyooli booleeg sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke bi sëriñ Abdou Lahad Mbàkke nag toogee xalifa doon na toppitim nag buntu kër yi kër gu ne itim nag mu jël fa kamu foog ne daal moo fa ëppum xel wala itim nag am naw fita ngir nag mu ànd ak moom nag liggéeyal sëriñ Touba Seexul Xadiim nag topp nag buntu kër yi nag ba egsi nag kër sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly la waxtaan ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly di ko xamal ne yow mii daal laa bëgg buntu kër sëriñ Abdou Dia Mbacke nga bokk itam ci ñi nga xam ne nii dañuy sës rëkk nag ci man di ma xelal saa bu ma juumee wala ma bëgg a def dara ñu waxtaan ci nag ba juboo ci la ko sëriñ Cheikh Mbacke nag moom sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly di ko xamal ne dinaa la booleek sama rak nag sëriñ Saliou Mbacke ndax ko am fit la te itam nag ko amum xel la te li nga bëgg ci man nag jort naa ne itam nag moom nag man na ko ci la sëriñ Cheikh Cheikh Mbacke nag fobe rakkam nag sëriñ Saaliwu Mbacke boole kook sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke loolee sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag doon sàkku itam nag sëriñ Saaliwu itam nag mënoon na ko muy xel mi guddoon na te itam nag fit wi ngi fi woon bi sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag sancee Touba belal ba wax ne nag dafa bëgg a wut nag ab chef de village ci ñim ci doon waxtaanal nag sëriñ Saaliwu Mbacke moom sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli nag ci la bokk sëriñ Saaliwu Mbacke nag daana nettali ne bisub keroog bi ko sëriñ Abdou Lahad Mbacke nag di laaj da koo woo nag mu ñëw mu ne ko Saaliwu jaraaf nag laa bëgg a bii nag di Touba Belal kat nag nga xalaat nag ma def ko ko Serigne Saliou nag di ko tontu ne dangaa xalaat ba noppi wala da ngay laaj nag xalaata Serigne Abdou Lahad nag di ko xamal ne damay laaj nag xalaata mu di ko xamal ne nag Serigne Mewnu Jaxate da man na ko mbokk la te xel mi itam nag baax na la ca dollee ko itam nag mbaakal googu itam mu bàyyi ko saa boo ko joxee nag jaraafu Touba Belal mbokk yam bàyyi ko nag danañ xam ne yow mi mu fekk si de sa gëne woo ko te am xel te itam nag nangu naa liggéey te lii nag la ñuy dooyee nag ab chef de village nee na keroog nag Serigne Abdou Lahad Mbacké ngaa dem nag ba suba bi asamaan setee nag mu ñëw nag nuy si sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké sëriñ Abdou Lahad Mbacké nag di ko xamal ne la nga ma def ko mu la mu ne ko mujj naa fom nag sëriñ méw nu jaxate nag def ko chef de village yu Touba belal la sëriñ Saliou nag di ko xamal ne kon kay daa fekkoon nag nga nar ko sëriñ Abdou Lahad nag na nag ma nar ko ba pare waaye dama la ci doon laaj nag sa xalaata li taxoon nag ma woon la nag la laaj dañ maa waxoon ne yow sëriñ Saliou Mbacké sam xel na xel mu rafet la te itam na ko amu fit nga moo taxoon nag ma woon la itam nag doon la ci laaj laaj nag sa xalaat li ma xalaat nag moom nga xalaat sëriñ Saaliwu Mbàkke mi nag bokkoon na ci ñi doon xelal nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ci nag a xilaafaam relation boobu mu amoon nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Mbàkke na sëriñ Abdou Lahad Mbàkke dooma mu wéy nag ànd ak sëriñ Abdou Mbàkke ba ni fi sëriñ Abdou Lahad Mbàkke nag bàyyi ko nag ci atum 1989 mook sëriñ Saaliwu Mbàkke nag ñoo ànd ci njëlbeenu xilaaf ak sëriñ Touba Cheikh Abdou Mbàkke sëriñ Saaliwu mi nag moo nekkoon secrétaire nag bu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke bépp sëriñ saaliwu mbàkke mii nag moo ko daa bind ku ñuy wax nag sëriñ mouhamadan buso moom nag moo yoroon nag lettre français yi sëriñ ngan goo xam ne itam nag sëriñ tuuba cheikh abdou lahad mbàkke ko dem sëriñ saaliwu mii nag mooy toppatoo nag ngan nga nag ba mu jaar yoon bépp dal itam boo xam ne nii itam ñu ànd ak sëriñ tuuba cheikh abdou lahad mbàkke itam nag war nañ leen a dalal loolee itam nag sëriñ saaliwu mii itam moo koy toppatoo lépp loo xam ne nii itam nag war nañ koo jëfandikoo itam nag moom moo koy toppatoo mën nañoo wax ne daal moom moo nekkoon chef protocole sëriñ tuuba cheikh Abdou Lahad Mbacke booba nag sëriñ Modou Mamoun Niang nag ñi biseegul ba ci dëkkub sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke bii ñu tudde nag Touba Belal biñ koy gor néeg ya nga xam ne nii nag moom lañ fa taxawal pour donga yi jóge woon nag Daaru Salaam bukki barga man faa nawet nag seen nawet bu njëkk sëriñ Saaliwu Mbacke mii nag la ko sëriñ Abdou Lahad Mbacke toppatooloo ak ku ñuy wax sëriñ Modou Guèye Xarimadu ak sëriñ na Fall ñoom ñett ñi nag ñoo duggoon nag réew mi wut nag ay néeg yoo xam ne nii donga yi war a jóge nag Daaru Salaam bukki barga war nawet nag seen nawet bu njëkk nag dëkk boobu nag belal néeg yañ war a fanaan nag ñoom ñett ñii nag la ko wutloo woon sëriñ saaliwu mbàkke mi itam nag la defoon nag seen jëwriñ bi ñu sancee foofu itam nag ba noppi bañ war a wutal dëkk ba itam nag ab chef de village bisub keroog itam sëriñ abdoulahat mbàkke itam moom mii nag la ci waxtaanal xel moomu mu amoon nag ak fit woowu mu amoon nag ci ginnaaw sëriñ tubaa seex abdoulahat mbàkke am na benn bis itam nag sëriñ tubaa seex abdoulahat mbàkke yónni ko nag ay tool àllarba ci suuf si nag di kajoora bisub keroog na nga fanaan si nag ci dëkk bii nag di Touba bi Serigne Saliou Mbacke demee nag ba lijjanti nag tool àllarba ba nag ba noppi bi mu delsiwaatee nag ci guddi gi bi mu ñëwee Touba nag lañ koy xamal ne daal Serigne Abdoul Ahad Mbacke nag nekku fi ma nga belal mu jël guddi gi nag dem belal bi mu eggee itam nag ba gisee ak Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Serigne Abdoul Ahad nag da koo xamal ne man ngaa dem nag ba suba ca suba ga nag ba mu dikkee nu yónte waate ak Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad jox ko nag xaalis bi nga xam ne nii nag moom mooy nag addiye ya Serigne Abdoul Ahad Mbacke nag dana tekk nag ab diir ginnaaw nag la koy xam nii daal boo leen yónni woon danañ xam nag la nga leen yónni lan la bu doonoon xaalis tim nag mën nañ koo fecc na xool ko waaye yow na ku maandu nga ku doylu nga ku ragal itam nag suñu boroom nga loolu dong nag la ñuy xool nag ci doomu soxna fu baree baree bari daal la jaar ak sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke ci diir nag bi mu nekk ak moom sëriñ tubaa seex abdul ahad mbàkke sax moo ko jébbal nag kërug tuubaa mu nekki nag ci wetu baseeb seex murtada mbàkke gi ci kër googu sax nag la génnee àdduna ci atum 2000 la moom sëriñ saaliwu mbàkke nag yoroon na nag ay soxna ci biir soxna yi mu dëkkoo woon nag ñu mën cee ràññee soxna màggat gom mook soxna màggat gom nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ seexu naa mbàkke mi nekk nag ab xalifaam jamono ji soxna faati ja mbàkke di ki sëriñ saaliwu mbàkke faye nag bàjjanam soxna fat ja mbàkke ñu gën koo xam nag ci soxna bintu sëriñ moustapha mbàkke ku ñuy wax sëriñ mbàkke dafa génn àdduna kam faye woon sëriñ abdoulahat mbàkke kooku itam nag dafa génn àdduna ak kañ doon wooye nag sëriñ ibrahima mbàkke kooku itam nag dafa génn àdduna njaboot gi nag la soxna màggat gom na soxna suñuy wax nag soxna faati jéy mook soxna faati jéy nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag kam faye woon cheikh mamadul faadal mbàkke kam faye woon waajuróom wa sëriñ abdou ja duyooli kam faye woon nag bàjjanam soxna assu mbàkke mbàkke kajoora soxna xari mbàkke mu faye ko nag waajuru sëriñ abdul wuddood mbàkke ak kam faye woon nag sëriñ soye bu mbàkke ibnu xaadim rasul yoroon na soxna suñu wax nag soxna amisi mook soxna amisi nag benn bant nag lañ am muy nag kam faye waate woon nag waajuram wa di sëriñ abdu ja mbàkke du yooli ñu di ko wooye nag sëriñ jiili mbàkke yoroon na soxna suñu wax nag soxna faati sekk am naa moom nag benn bant muy soxna faati gom mbàkke di kim faye nag waajuram wu jigéen ku ñuy wax soxna ayda mbàkke mu tudde ko nag ab jigéenam soxna roqee njaay mbàkke mu tudde ko nag rakkam bu jigéen boobu nag mu bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góora kim faye nag maamam nag di waajuru sëriñ tubaa seexul xadim di soxna jaaratullaahi ku ñuy wax sëriñ siidi mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ cheikh mbàkke mu faye ko nag magam ji mu bokkal waajuru góor nag ak waajur wu jigéen yoroon na nag soxna suñuy wax soxna kumba sekk ndakaaru nag la féete woon amuñu nag ak njaboot yoroon na soxna suñuy wax nag soxna maymunatu mbàkke soxna maymunatu mbàkke bintu sëriñ tubaa seexul xadim nag moo ko jébbaloon mook soxna may nag amuñu nag ak njaboot yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Astou Touré njaareem nag la dëkkoon moo soxna Astou Touré itam nag amuñu nag ak njaboot yoroon na soxna suñuy wax nag soxna Njóoba Njaay dëkkoon itam nag Tuubaa Daarul Xuddoos moo soxna Njóoba Njaay itam nag amuñu nag ak soxna yooyu nag la dëkkoo woon njaboot yooyu nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot googu mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna Bintu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Abdou Ja Mbàkke du yooli nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Fàllu Mbàkke nag moom sëriñ Omar nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Maam Faati Mbàkke sëriñ sëriñ omar mbàkke sëriñ ahmadu mbàkke soxna nday ami mbàkke sëriñ mbàkke mbàkke ak sëriñ mustapha mbàkke doom ji nag di soxna assu mbàkke mu faye woon ko nag soxna assu mbàkke mbàkke kajoor di bàjjanam soxna assu mbàkke moomu nag bi matee dem kër sëriñ alaaji mbàkke nag lañ ko joxoon moom sëriñ cheikh mbàkke duyooli moom sëriñ abdu ja mbàkke duyooli mook sëriñ alaaji mbàkke nag am nañ ak njabooto ñu mën cee ràññee nag soxna maget mbàkke soxna maam faati mbàkke ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ alaaji mbàkke moom soxna assu mbàkke lañ ko jébbaloon nag ku ñu Diop moom sëriñ Basiiru Diop moom sëriñ Moodu Masamba Diop mook sëriñ Maxtaar Diop nag amuñu ak njaboot doom ji nag di soxna Xadi Mbàkke bi bu ñuy wax waraak sëy nag lañ ko yóbbu woon mook sëriñ Baara Sëy nag benn bant nag lañ am muy ku ñuy wax nag maam say sëy ginnaaw bu mu jógee nag ci dëkk boobu nag di waraak sëy moom soxna Xadi Mbàkke lañ ko jox nag sëriñ Ahmed Mbàkke moom sëriñ Baara Mbàkke moom Xaadimu Rasuul waaye mook sëriñ Ahmed Mbàkke nag amuñu nag ak njaboot ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Ahmed Mbàkke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke moom soxna Xadi Mbàkke Mbàkke lañ ko jox nag sëriñ Abdou Manar Sëy mook sëriñ Abdou Manar Sëy nag amuñu nag ak njaboota doom ji nag di soxna maam Faati Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Abdou Lakram Mbàkke moom sëriñ Muudu Farmata Mbàkke moom sëriñ Aafiya Mbàkke nag lañ ko jébbaloon soxna maam Faati Mbàkke mook sëriñ Abdou Lakram nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Waalo Mbàkke soxna maam Awa Mbàkke sëriñ Saaliwu Mbàkke Cheikh Ibrahima Faal Mbàkke doom ji nag di soxna Ayda Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Aboo Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke Duyooli moom sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli nag lañ ko jox Ayda Mbàkke nag moom sëriñ Abo Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna maam Faati Mbàkke sëriñ Baay Abdul Ahad Mbàkke soxna Xadi Mbàkke sëriñ maam Xaadim Mbàkke sëriñ Jiili Mbàkke ak sëriñ Masamba Mbàkke doom jii nag ñuy wax soxna maam Jaara Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moustapha Silla nag lañ ko jox waaye moo ko sëriñ Moustapha Silla nag amuguñ nag ak njaboot njaboot googu nag ñooy doomi sëriñ bi kër yiñ dem nag njaboot yañ fa am ñooy lenn tim nag ci sëti bi mu mënti def itam nag ba jaamu suñu boroom jot bàyyi leen ko fa nag dem jaamu ji nag suñu borooma lépp looy def nag julli jot nga continuer nag di ko def bis dana ñëw nag nga réccu loolee nga doon def nag taxoon na nga bañ nag jaamu ji suñu boroom loolee itam nag dana mujj nekk nag saw lëjël lépp lu ngeen di def nag ba jaamu suñu boroom jot ngeen ko fi ba nag dem jaamu ji nag suñu borooma timis ak jee du bërëbu nag waxtaanukaay bërëbu nag jaamu suñu boroom la waxtu woowu itam nag bari na lu suñu boroom di dogal nag doomu aadama ci waxtu woowu nag la koy dogal war ngeen nag di xalaat nag bis penc te su ngeen di julli jee lu ngeen mën nag ci jaamu suñ borom nag na ngeen ko def lu ngeen mën itam nag ci jàng alxuraanul karim nag na ngeen ko def ku daa waxtaan ak njabootam la itam nag ci sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim daana def itam nag ba pare bu ëllëgee mu laajaal leen nag lu mu waxoon démb suñ ci jaaraatee nag xam ne nag fàtte wuñ ko daana leen wax ne itam nag seen maam ja sëriñ Abdu Ja Mbàkke Duyooli daana wax ne sëriñ Tuubaa nag képp ku koy tudd na fekk nag nga jàpp nag ba sell te sëriñ Tuubaa itam nag bu ko kenn tudd te amoo nag soxla doom yi ñuy wax soxna Bintu nag nekk nag ab taawam nag bu waajuram moo ko xamal ne li tax nag amul woon kawaru bopp bi muy toll nag ci juróomi at boppam nag dafa amul woon kawar boole kook nag bopp bi itam nag bari woon nag ay picc ginnaaw bu ci waajuram nag sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli nag jaaxlee la ko yit nag ko baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nag ci njaareem di ko xamal ne daal sama doom ji bopp bi nag bariwul kawar picc yi nekk itam nag ci bopp bi itam nag lu ma jaaxal la nee na nag bisub keroog itam nag sëriñ Tubaa Seexul Xadiim loxoom ba nag la jël nag teg ko nag ci bopp bi tàmbali ko dale nag ci jëbi ba jëbi bisub keroog nag méttitu bopp nag bi ko daa daaneel ak picc yooyu nag nekkoon itim nag ci bopp bi bisub keroog nag la ko mujjee gis teg googu sëriñ Tuubaa tegoon loxoom nag ci boppam moo waraloon itim nag da moo waraloon itim nag daawul sax kawar képp ku xam sëriñ Saaliwu Mbàkke musoo koo xamee nag kawaru bopp mu ne lii nag moom moo ko waral mu nekk nag ku fonk alxuraanul karim néew na lool na nga gis ko te fekkoo ko nag muy jàng nag alxuraanul karima ku amoon itim nag xel mu rafet la saa bu nit masaa jaaxle su ñëwee gis nag njariñam musta fekk itam nag diggante nag bu yàqu saa bu ko fekkee dana ca wax lu rafet nag dox ca ba diggante boobu itam nag delluwaat nag na mu meloon xel mu rafet moomu nag ak bëgg lu baax loolu moo taxoon nag magam nag sëriñ Cheikh Mbacke jébbaloon ko nag sëriñ Abdou Lahad Mbacke ngir itam nag mu di ko xelal sëriñ Abdou Lahad Mbacke itam nag yónni na ko fu ne ndax nag xel mu rafet laaj na ko xalaat bu na itam nag ndax xel mu rafet loolu daal sax nag ba ni mu toogee xalifab sëriñ ci atum 2000 laataa muy génn àdduna nag doon na wax nag ak njabootam xam naa ne nag duma fi yàgg ndax Serigne Cheikh mii dem nag yóbbaale na nag mboolem sama bagages yi waaye nag bala maa génn àdduna nag dinaa fi def nag loo xam ne nii képp koo xam ne nii daal sàmm nga ko sàmm nag lu rafet képp koo xam ne nii itam nag eggale nga ko itam nag di jàmbaar loolu itam nag tax na moo yeesalaat nag dëkk boobu nag di duyooli foofu njabootug Serigne Abdou Dia Mbacke duyooli wutal leen kër goo xam ne nii itam mooy kër Serigne Abdou Dia Mbacke dimanche 7 mars 1999 la sanc nag kër sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli nag ci Duyooli moo xaar ne itim nag dëkk boobu nag Duyooli googu nag ñu koy woowee dana fexe mu fob nag màggal gii nag ñu jagleel sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli dañ ko daa amale nag ca Ndakaaru mujj gi itim nag ñu koy amale nag ci Tuubaa mu tuxal ko nag ci dëkk boobu itim nag di Daaru Salaam mu nekk nag ku jaxasoog njabootu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim gi rawatina nag sëriñ Tuubaa Seex Abdou Lahad Mbacke mi nga xam ne nii lu ëpp nag ci ak dundam ginnaaw nag waajuróom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag la ko nekkal mu nekki nag ku jaxasoog soxna Astou Gawane Mbacke bintu Cheikhul Khadima soxna Astou Gawane Mbacke nag daana ñëw itam nag ci këruk Toubaam googu nag di ko seet si sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke itam nag naka noonu ku jaxasoo woo nag sëriñ Saliou moom sëriñ Abdou Dia Mbacke du yooli ba bi mu feebaree sëriñ Saliou Mbacke itam nag moo sàkku ñu jële ko Touba nag yóbbu ko Ndakaaru mu boole koog Cheikh Béthio Thioune nag doon ko xamal na toppatoo fi du yooli boobu Cheikh Béthio Thioune nag moo ko toppatoo nag ba nim delsiwaatee Touba mu nekk nag ku jaxasoog Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Xaadim Rasoul Cheikh Mourtada Mbacke nag moo ko jullee nag ginnaaw nag bu mu génnee àdduna moom Serigne Saliou Mbacke mi ngi génn àdduna nag ci feebar nag bu ko tëral ci kërug boppam nag gi mu amoon Touba te Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag jébbaloon ko ko ci tàkkusaanu alximisa juróom benn fan nag ci weeru gàmm ci atum 1421 nag ci gàddaay gi alximis juróom benn fan yi gàmm ci atum 1421 nag ci gàddaay gi 9 juin nag ci atum 2000 jeudi 9 juin nag l'an 2000 ñu fanaanal ko nag ci alxamis ji bët set nag di ajjuma ci yoor yoor bi nag lañ ko jébbal boroomam cheikh murtada mbàkke ibnu xaadim rasul nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci wetu magam ja sëriñ cheikh mbàkke duyooli ak waajuram wa nag sëriñ Abdou ja mbàkke duyooli ci armeer nag yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëdde sëriñ seexuna mbàkke moo ko wuutu ci atum 2000 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu boroom guddal aw fanam nag te wéral ko nag ci toogaayu waajuram boobu ak mboolem nag ñu mu sëriñ saaliwu am na bis nag ñu koy fàttaliku nag ci ñu tudde ak màggal bis bii mu génnoon àdduna juróom benni fan nag ci weeru gàmmu saa bu dikkaatee nag sët yim am nag danañ dajaloo wàcceel ko nag ay kaamil ñaanalaat ko def nag ay bernde màggal gi nag njaboot gu jigéen gi nag ñoo ci gën a fés rawatina nag doomam ji nag di soxna Ayda Mbàkke ci dëkk bu sell bii di Tuubaa nag lañ koy amale ñu jàppaat bis bi nag déwén ñuy ñaan ca doomu sëriñ Abdu Ja Mbàkke du yooli ba kañ doon wooye sëriñ saalihu mbàkke yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci dara jay mbake amiin dara jay mbake amiin dara jay mbake amiin dara jay